coowal suuf moo nar a indil coow président Macky Sall ubbi leen xët wu njëkku la quotidien coowal suuf géeg paacoo géeg yorin wu bon wi bu yebuwul dina folli président Macky Sall moom kay nag moom réew mi moom suuf desatu fi li fi baaxul lépp jël nañ ko wala ñu jaay les éco nee ñu moom kay nag li mata wax dëgg sax nag waxagu leen ko ndax pàkk yooyee de ñañ ko jox du ñenn rek ñu dul mara bu yéeg ministre yi ak magistrat yi les éco ne ñu moom kay nag liy ràmba ngay bëgg egg ca ñag ba te lii day buñ ci waxul mooy scandale bi nar a jur musiba ba kumba fii ci réew mi lëkkatu quotidien nañu moo taxit jeexal na ko nag kan moo ko jeexal las nañu Macky jeexal na coow li le quotidien jëlaat wax ji ca moom ne ko moom kay nag moom sonn rek la far def moo taxit président Macky Sall jëlaat na dogal dakkal lépp lu jëm ci projet d'aménagement bi bu dee waa Descos moom teggiwaat nañ seen tànk ndànk rek ca kër yañ doon toj fële ca Mamel li daloon Sénégal 2012 bu yabuwul dina ko dalaat moom kay nag moom ñaanal jàmm rek waaye guerre moom lañ ca dundoon doy na sëkk waaye bii gerte dina wuuteeg yi fi amoon kon ñu àndandoo yër xët wu njëkk vox populi yaanaa maar mi armé wu ba jekk fas yéene songu président Macky Sall moo ëlëm askanu senegal yéen leen xët wu njëkk journal bi moom kay nag guerre dëgg commencé na du samay kàddu ubbi leen xët wu njëkk vox populi fekk fa kuñ naan caat caat nee na ñun kay takku nañ ba dëgër fas yéene dajale bépp gone gu nekk ci réew mi te bañ ko saax-saaxee alali réewam ne Macky Sall moom ni mu yore réew mi dina fi jóge wala ñu ñàkk suñu bakk ñi ñàkkaat seeni bakkan ci jàngoroy coronavirus bi ñoo ngi ci xët wu njëkku libération ubbi leen journal bi fekk fa kuñ naan Moussa Sam Daaf njiital l'hôpital Dalal Jàmm Daaf nee na juróom-ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti malade yi ñu am tey juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent ya ñoom wér na ñett ya ñoom ña nga barsaax buñ ko booleeg lim bi fi amoon dañuy daali am rek lu toll ci juróom fukk juróom ci ay néew moom kay nag moom démissionné rek la ñu war a def këru santé gi moom dañoo war a démissionné rek tekki rek seen ndombal tànk ki tekkiwul ndombal tànkam ba noppi naan bàyyi bàyyi ne kuy tukki mi ngi ci xët wu njëkku journal bi bàyyi bàyyi xemes wuy xemes jóge na fi sursu aaneñu moom kay nag bis naka tey laa leen wax communiqué de situation moom kenn du ko déggati ci mim réew ki ñépp di daw dawtem jël dundam gépp saam ko di ko jaay moo ci xët wu njëkku vox populi di dog di président Lamine Diack ubbi leen journal bi moom kay nag ndakate liñ koy waxal lépp moo ko def libération nañu moom kay nag nit dina wax ndakate ba dugal boppam waaye doomu lamin Diack ji day dugal na baayam doomu Lamine Diack ji nee na sama baay jot na Pandozi 264 virgule 924 dollars ca kontam ba nekk fële ca Monaco waaye Masata yamu ca nee na tey itam envoyé na lu toll ci cent soixante-dix dollars ak cinq cent euros yoo compte baayam bi mu ubbi woon fële ca Société général moom kay nag kon ba suba ak jàmm rek ndax man waxi bàyyi ak doom moom xajuma ci ba ëllëg